jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëfati mbokk internet yu 5M TV Sénégal dal leen jàmm ci seen chaine bile xibaar yi. lu ñeel nag campagne électorale bi ndax gis nañu dimanche ba tey coalition Diomaye président dañ leen téye file ndakaaru kon demuñu ci yeneen région yi lee mu mel ni loolee am na lu ko waral ginnaaw meeting bu am solo bi ñu amal foofee ca Parcelles Assainies ak mobilisation bu takku bi nga xam ni rek askan wi def nañu ko ak ñoom ci àllarba bi candidat bu Pastef Bassirou Diomaye Faye ñu yaakaar ni kon danañ ko rek daal di féexal. waaye mu mel ni nag loole ba tey amagul wala gisaguñu ko ginnaaw bu ñu sukkandiku ci suñu naataango yi lii di les enquêtes ñu xamal ni kon patriotes yi ñoom jàppoon nañ ni danañ dem foofee ca Tiwaawan Kébémer Louga ak Ndar Géej waaye mu mel ni loole ba tey defaguñu ko journal bi di ñu xamal ni boobu léegi kon ñoom ñu ngi ci biir Ndakaaru di ama rek campagne bi li waral kon génnaguñu lan moo ko daal di waral tax na sax suñu naataango ñoom samp ab laaj jëm ci responsable yu coalition Diomaye président ni lan moo waral nag ñu xaar wala itam boobu ba tey génn guñu rek biir réew mi file di ndakaaru kon dem ci yeneen gox yi ba tax na kon amaana dañuy rek xaar Diomaye ak Sonko ñu daal di leen di bàyyi ginnaaw li nga xam ni jot nañu ko dégg ci benn taskatu xibaar ndekki ni dem ndax loole dana am waaw wala déet wala itam. dañuy xaar rek ñoom fi mu nekk ni ndigal gi rek ngir ñu mën a génn ndax moom Madiambal Diagne loole la xamle moom taskatu xibaar bile tax na fi mu nekk nii kon ñoo ngi rek di xaar mbir mi fan lay mujjee. Serigne Mboup daal di nay tontu ci ba bi foofee ca rajo Futur Media ki di maître El Hadj Diouf di ko. xamal ko 5M TV jàng na tubaab. mën na làkk anglais ak lile di arab te xam na ni kon fa mu bokk Maître El juuf mu ni kon moom dafa ay jafe-jafe rek moo waral kon tey jile mu taxaw di wax lu nu mel waaye loole du ci ànd ak moom benn yoon ndax moom Serigne Mboup nee na lu nu mel daal moom xam na ko muy anglais français ak arab mën na koo wax te itam rek xam na ni muy jëflanteek nag wax ji tax na kon mu ni Maître El Hadji Diouf lam ko wax àndu ci benn yoon ndax moom li nga xam ni moom lay wax kon tegu ko fenn ndax moom nag day jaxase français olof bi te loolee tegu ko fenn itam mu jàpp ni kon moom nag Maître El Hadji sax du nawleem ginnaaw gi muy tontonteeg moom ndax jàpp ni dafa rek am problème mu xel.